pour chaque internet Banlieue Production ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaan boo leen seetaanee suñu vidéo ba pare ngeen bës abonné bu leen fàtte mu ko bës kolos bi suuf parce que moom mooy tax vidéo bu ñu dugal ngeen njëkk see jot bye bye. di leen ziar dama xiif. yaa ngi si jàmm naka waaw koor gaa ngi nii waaw ah, tàmbali waaw maa ngi woor tàmbali nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim di ñaan yàlla rek ñu ko ci alhamdulilah rabbil alamin amin eh, tey nag eh, di sa bésu anniversaire eh, ñu gis ni ñëpp ñëw nañ feete ko ak yow say xarit say am di jàmm say mbokk nan nga gisee loolu waaw d'abord damay nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu fans Soukeyna Nabou Leye fans Diango yi moom <laughs> fans Pape moom kay waaw maa ngi nii sukkay borom ñaari galon yi ragaluma loolu awo ñaareel maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen yéeguwaay yéen ñëpp hmm? di sant samay ñaari waajur bu baax a baax a baax di leen gërëmaa ah. di sant sama yaay ju baax bi sama sëriñ sama lépp di sant aussi sëriñ Saliou Mbacke sama xol sama àddina waaw mi ngi nii mi ngi nii de nagoo ngi nii rek comme que anniversaire bi moom chaque année dama daan def programme ren nak mu tombé koor gi te koor gi mom sax koor dama lan joxe ay ndogu mané sa fait l'occasion day gëna yok rek wala ma génn joxe ndogu yi paré nak pour def tiant rek spécial Serigne saliw rek tiant Serigne saliw waaw parce que koku mom moy sama xol moy sama àdduna moy sama lepp waaw nit ku nek nak am nga ki nga bëgg nit ku nek am nga sa Serigne te sa Serigne moy sa xol man nak Serigne saliw moy sama xol motax ma jagleel ko sama jour anniversaire daal waaw alors ñu gis jour anniversaire ñi nga xamante ne ñooy say collègues euh, ngeen bokkandoo même série boo leen di joué ñu ñëw teew ñoom ñaar ñëpp am rôle bu déterminant boo xamante ne dañ koy joué ci yow rôle bi ngay joué loolu ban jugement nga ci am. waaw sant yàlla rek parce que man moom nee naa sama àdduna yëpp ku wàcce boppam ku ma yëg man moo ma sonal ci sama vie parce que nit amul lu dul amoo lu dul say nit amoo lu dul ñi la yëg te ñaar ñi dañoo bokk ci man. malgré que bi ñu xamante yàggul mais dafa mel ni xamante nañ ay ati ati at parce que ay Baay Faal lañ ñu baax lañ ah, endosserie bi amuñu problème te dañoo nekk ñoo xamante ne nii man dañoo sori ci man même bu nekkee bi ñu xamante yàggul parce que seeni conseil ci man lu ci mel ni Pape Demba des fois dañuy waxtaan WhatsApp daf may conseillé barki Serigne Saliou day mel ni bi ñu xamantee yàgg na lu baax erreur sax bu ma ko defee du ma ko wax ci fi ñu nekk day bàyyi ba ñu wéet wala mu bàyyi ba ñu ñibbi mu message ma xam nga ne ma defal li defal li jaaral nii jaaral nii jàngoo si la même chose ah sorantewuñ day ñëw ba sama kër toog waxtaan ak man ñuy échangeante muy mu may mu may mu may wan ci àddina lu bëri ndaxte xam na ne moom góor la te man jigéen laa te jigéen moom xelam matul donc day soxla ku koy mottali moom tamit la même chose ñoom ñaar ñëpp daal vraiment ay baay faal lañ samay xol lañ daal bëgg naa leen trop. waaw dafay dafay xaw a métti. day xaw a métti non baa ma tontu rek. non non ah. aw ak ñaareel kii. aw waaw kii moo ma may jàmm kii mayu jàmm. kan may aawoo ah? si. cokkeer bi cokkeer bi. <laughs> affaire mm. lu mujjee ñëw day ëpp doole. ñaareel rek. ay léeb la rek. mais de mujjee ñëw taxul de. mais nag ah. euh, ñu jël say mbokk mën nañ ak say xarit ñuy wax jikko boobu instant euh, tekk ci sa der. Mhm. ndax série bi nga xam te moom nga nekk di joué nan ngay dundee loolu. la doomu aadama yi di seedal ci àll bi bu la ko say mbokk seedalul rek c'est nul en fait zéro la. Mhm. te man dama nekk nit koo xamante ne dama yaroo ci famille bu mag. Euh, xam àddina ñu xamal ma àddina série nag série la rek scénario scénario la rek nit ku nekk foog naa ne li ngay liggéey da nga ci dem ba jeex ak ku mënti doon muy président beeg procureur beeg avocat beeg danseuse beeg woykat beeg ñëpp ñoo ci yam man dama ne lu may liggéey dama koy jox àqam jox ko gëddam parce que sama liggéey la ci laay ñàkk sama kër ngeen ma fekk gis ngeen ma mën ak sama yaay ñoo dëkk aar bi li ma ciy am ci laa koy dimbali li ma ciy foraatu ci laa koy dimbali taxawaalu ma mën naa ko de mën naa lu bëri mais sama ngor mayuma ko te jomm naa di nekk ci yenn di ñëw di ko jox sama yaay te lu ma am sama yaay la dërëm bu ma am sama yaay laa koy jox donc dama koy teg ci yoon métti na nag des fois dañ may saaga des fois dañ may wax wax bu ñaaw des fois dañ may wax wax wax wax bu bon mais saa su ma yeewoo rek jàkkaarloog sama yaay rek mu ne ma lay bu soñ maa ngi lay ñaanal sama xol day sedd loolu noonu yëpp après ay détails lay nekk si man parce que man moom ku ma xam xamee ma ay ree waaw liggéey la rek comme liggéey yëpp damay liggéey rek waaw parce que j'ai ma te voilà yàlla moom nee nañ famille amul taaw amul caat yàlla ku ko neex lay tànn def ko njiit ma am ay frères yu baax nag samay frères duñu sigg xool nit bu ngeen duggoon fii ci kër gi ba génn mun ngeen dugg ba génn duñu leen sax gis mais famille bu nek amna ko ci xawa man man mo ma ci maa ci <laughs> xawa a ñom des fois dañ may xol sax di reetaan wala ñu may xol sax di yëngal seen bop parce que dama leen di jaaxal mais ñom tamit euh, sétane nuñ ma yoon te tay ji mën na ne buñ dëngoon rek man suma ñëw damay top seen tank mais dama ñëw fekk si juli jub baax euh yaatu ah ouvert ba pare euh, xam partage donc man ma judd fekk leen si ànd ak ñoom ci lolu ma leen ci remercier bu baax

boo seetloo nga xool nit ku bàyyi yaayam dem dëkki moom kase la muy am ak fa muy toll ak nit ka nga xam ne mooy toog ci wetu yaayam du boq yaay mooy lépp man jomm naa liggéey yor sama xaalis wala jomm naa di feeñ si télé rek ne man voilà star la du ma dëkk ak sama famille non jamais de la vie sama kër yaay ji ma toog sama wetu yaay ji jëkkër moo ma fiy jëlee àdduna du yàgg ba mu wuti appartement di dëkk sans sama yaay parce que man sama yaay mooy sama àdduna yaay mooy lépp li may wax chaque jour rek nee naa yaay moo la mën a xamal àdduna ak la ci biir toogaale ko mm-hmm. yaay nga mën a def toj-toj ci àll bi ñëw mu toogaale ko yaay moo la mën a muñal moo la mën a nëbbal moo la mën a dencal moo la mën a teg ci yoon kon ñun amuñu suñ seen fay en fait amuñu seen fay pourquoi ñuy ñuy ñuy ñuy nekk ci benn milieu bi dem ba xaw a yëkkati ko tuuti war leen wan ginnaaw man mun naa dem dëkk feneen weer bu dee ma yëkkati xaalis jox ko sama yaay mais la may demee di fay ji feneen ma yëkkati ko jox ko ko ñu bokk suñu dëkk ma koy fay man moo ma ko gënal barke Serigne Saliou xalaatuma ko banlieue laa dëkk fii laay tiitooroo depuis xale ba léegi fii laa nekk mosuñu ma dégg ci détail suñu ma dégg ci problème maa ngi suñu kër bu ma amee liggéey liggéey ko sama amul liggéey toog aw ma xarit aw ma àndandoo demu ma dikku ma sama yaa nag moom mooy mooy sama jumelle mooy sama anti stress mooy sama xarit <laughs> mais loolu yàgg na fi yàgg na fi parce que comme niñ koy waxee rek xam nga man moom duma ko nëbbu am naa doom j'ai une My suis koy am 15 ans man situation yi ma amee 15 rek dafa suis damay gis loolu noonu daf may daf may parce que <laughs> tu vois papa jour parce que fekk donc du léegi nag il faut ñu jéem a jàppale jigéen ñi parce que parce que parce que jigéen mooy lépp jigéen mooy yaay jigéen mooy mag mooy rakk mooy maam donc man li may wax nee naa saa jigéen dëkk bi du dem malgré que tamit góor mooy tax jigéen am jigéen mooy tax góor am mais tamit ñun comme que góor ñu ñoo ñu ëpp doole faaw ñu ñuy jéem a gestu tuuti surtout ci nguur gi di dimbali jigéen ñi ñi nga xamante ne seen situation demeewul noonu ah ñi nga xamante ne dañoo néew doole ñu leen di dimbali parce que métti na tamit nga nekk yaay ëmb 9 mois ah di accoucher décédé bàyyi fi sa doom xam nga xale boobu war a màgg du gis yaayam métit la métit la magam nagam ñun ñii di magum jëmm sax ñun ñooy xalaat tey jii yàlla na yéex bu suñu yaay demoon nan la ñuy def waxuma la xale boo xam ne dafa judd ba màgg gisul yaay xam nga dafa métti te yaay mooy lépp yaay mooy lépp no man moom li may wax chaque jour parce que man du ma bëgg sax di wax ci yenn waxi parce que dama xaw a direct de trop mais nit ku nekk ak ak ak sa gis-gis fu mu toll. Mm-hmm. nit ku nekk ak sa gis-gis fu mu toll xëy na ñoom loolu lañu gis ba dem defi ko mais man fii laa am banlieue fii laay tiitaroo àdduna du yàgg ba ma jug fi wala bu ma fa jugee tamit ci yeneen circonstance lay nekk te bës bu ma fa jugee tamit du ma fi gëj ndax fii laa am man sama yaa daf koy wax nañ génn fii nañ génn fii nañ déménager xam nga parce que gis ngeen fu ñu dëkk mais damay ñeewant sax pour juggé fi dem dëkk fenen parce que tellement que tam na fi bëgg na fi de trop ba moy lool dal en tout cas banlieue bi lañ ñu am de te banlieue bi lépp a ngi fi nak artiste yaa ngi fi ministre yaa fi xam nga maire fi moy lool dé waaw banlieue dafa ris waaw lépp rek man dama nan lépp art la ñëpp aar la fecc bi aar la théâtre bi aar la destin la nag bu ma war a war a war a war a jaar rek ma nekk ci di ko sante yàlla bu baax parce que xëy na nit di nga di nga yëngu ci leen li fekk ne am na leneen loo xamante ne yow moom moom mooy gën a nekk ci yow te mi ngi ñëw ci kanam mm-hmm. comme xam nga man bi may nekk ci danse xama ne woon sax dinaa dinaa dinaa def euh, série mais sama papa sama xarit mooy Aziz Dabala alliance Kels ak Njool ñoo ma yóbbu woon Pikini production ma dem fa def casting ñu jël ma ci laa commencé nekk série en plus mun naa ne aar don la rek parce que sama papa mu ngi tudd Thialis lay instant yi acteur la sax ci série bu ñu naan Vautour moom moom artiste peintre la mu ngi joué théâtre donc xëy na lu ma donn la lu ma donn la li li li mbëri naan euh, xaalisu mbër lañ ma ngénte man xaalisu aar lañ ma ngénte ah donc c'est normal waaw loolu moom dafa nekk ci man te mën na né sama yaay la ko donno parce que dama la am ay xarit yo xamantene buñu ma san dugg suñu kër dañuy ragal xol sama yaay parce que ci kanamam la nek mais bo duggé ci bir ba waxtaan ak da ngay xamné ki amul problème nitu kassa la te jigen bu nek war nga am caractère en fait caractère dafa bax ci jigen heure kaf bu joté kafal fo war reetaanal xam nga mais bul nangou ko la dépasser bul nangou ko la offenser bul nangou ko la toutal bul nangou ko la souffrir waaw moy jigen

te Pikine production moom tamit duma wax tam te waxuma ci ñoom ah muy tonton Aline ak tata Ndeye ñu baax ñu ñàkk ki ñaan ñoo xamante ne tey jii ñoo tax ma dugg ci ci ci ci ñoo ñoo yokk tax daal ma nekk ci théâtre bi ma leen ci gërëm di leen sant parce que nekk naa fa ba jóge suma fa am problème bu ma fa jógee nag damay jaale ci Morodi foofu nag moom ah ñooñu bu may wax si ñoom sax sama xol day tooy parce que ñu baax a ngi ñoonu ñu am yërmande hmm? ñu ñu ñu bëgg a jàppale ay nit voilà man jël nañ ma ma def ak ñoom contrat vraiment liggéey naa ak ñoom ba nii première saison bi di jeexee aw ma fa benn problème. aw ma fa benn problème ñu nekk ñu baax ah surtout tonton Cheikh réalisateur kooku sama tons la sama xarit la ah tonton Julie ah ak tonton Thiandou maa ngi leen di ziar di leen bëggee di leen remercier nag ci aventure bi ma bi ñu ma dundaloo parce que dañ ma jàngal lu bëree bëree bëree bëri loo xamante ne xëy na nekkagul woon ci man def nañ ko ci man donc euh, loolu yëpp c'est grâce à Mourodi ah ak tonton Mas ak euh, Adja Ndour sama xarit bi ah élément Serigne Saliou bi sama mbokku taalibe bi yéen daal yal na leen yàlla defal jàmm kontaan naa ci yéen ah. Hmm. Wow. Euh, mhm. parce que yow nga nga dem def ay promotion canapé ba am ci ba commencé see tournée sa destin la de mais boo toogoon xaar ko loolu du ci fekk day ñëw parce que man tourné naa série toog presque ans léegi man bu ma bu ma yàkkamti woon ba def loolu noonu c'est c'est nan laa ko mën a waxee sax dafay dafay trop en fait. ma dàgg ma seede ko ci nawet bi ma lay <laughs> la depuis la maa ngi toog voilà loolu la loolu la dama toog di xaar rek nañ xaar rek bu ñu yàkkamti dara gis nga nit moom ah lépp lu yàlla bind si sa jëbi lépp luy nekk sa destin allah kulli aali da nga ciy jot donc dara jarul yàkkamti man de ah man yàkkamtiwu ma sama dara. lu ñëw rek damay xam ne waaw fii la war a ñëwee fii la war a amee nii laa koy dundee nii laa koy doxalee jeex na voilà. merci maa ngi leen di sant di leen gërëm. di sant jàngoo ak Pape Demba jàngo borom ndulli yi maa ngi koy sant di ko gërëm. Pape Demba borom sukkay je t'aime maa ngi koy sant di gërëm moom bébé. dafa yàlla nag daf maa bàyyi dem ci jaari waaye bàyyi nga ko jongoma bàyyi nga ko jonge waaw waaw waaw waaw waaw waaw tubaarikàlla ah waaw maa ngi koy sant Maria Sine ndax moom tamit vraiment c'est la première fois ma ma ma ma liggéeyal ko tourneel naa ko mais dafa def geste bu rafet mm-hmm. dañoo pare mu fay ñu moom sax jëlu mag mais ki ma jël daf ma fay ba pare mu ma yëkkati chèque jox ñu ñun danseuse yi te loolu teraanga teraanga rek la man ku ma defal teraanga dama koy wax maa ngi koy sant di ko gërëm di sant nag sama papa Youssou Ndour parce que tey jii nii nii nii nii fu ma mën a yegg rek ci aar bi moom bokk na ci voilà parce que moom laa gis ci artiste tamit boo xamante ne ak foo mënti dem fu ma mënti yóbbu ci condition yu baax la lay teg per père Youssou ak sam papa Omar Gueye maa ngi sant waa orchestre Youssou Ndour yëpp mais moom moom moom mention spéciale parce que sama papa la aussi donc dama koy ñaanal gudd fan ak wér ah waaw yaa yàlla yokk taxawaayam. Mm, gën a gën a gën a wéral baat bi ku baax a ngi noonu ku ñàkk ki ñaan a ngi noonu. ah waaw ñu ngi waaj ñu ngi waaj man moom man moom wax naa ko jëpp moom <laughs> man si Youssou Ndour laa fixé. dans danseuse yu Youssou Ndour laa malgré que nag moom nekk na nit koo xamante ne dafay bëgg nit di liggéey dafay bëgg ku koy liggéeyal di liggéey en dehors nga nekk ci moom sax dafay bëgg ngay liggéey moom loolu la bëgg donc man ku ma soxla dama lay liggéeyal mais ba ci euh, fi may liggéeyee fi may tourné sax bi ma demee dama leen ne man danseuse yu Youssou Ndour laa moom laay feccal parce que gor su nekk gor nga waaw mooy sama papa daal man maa ngi ci moom <laughs> waaw mi ngi noonu ci riita mbalaga la waaye am na koo xam ne doo amati riita mbalaga jaa ngeen jëf yéen ñi abonné Banlieue Production bul fàtte cloche bi suuf pour jot notification bu la vidéo bi neexee ba